bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina mawlana muhammadin alamin wa ala alihi wa ashaabihi altayibin altahirin wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowm ddin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw nuyoo bi ñu ngi leen di ziyaara ci weeru tedd wi di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi di ndokkeel ku tedd ki sëriñ bi di ko ñaanal sunu boroom bàyyi ko ci sunu kanam lu yàgg lool te may ko wér ak kattan dëgëral ko ba li mu yéene lépp ci liggéeyal lislaam liggéeyal sëriñ bi ci njaboot gi ak taalibe yi ak jullit yëpp mu def ci lu koy njortam te lépp ñu ànd koog moom na mu gën a rafete di ñaanal kilifa yëpp sunu boroom sàmm leen aar di ñaanal jullit yëpp ndokkeel ñëpp ci at mu yees mi di atum gàddaay gi di atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom di ñaan sunu borom yàlla na nu jéggal njuum ak rëcc ci ak bàkkaari at mi weesu ak ya jiitu nangu nu jaamu yàlla ya waaye defal nu at mi muy atum jàmm atum barke atum ngëneel atum yokkute atum ndam ñu dugg ci ci bisimillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ciy ndokkeel ñëpp di wax rek ne saa yu at mu yees teroo dana am benn ponk ci ponk lislaam yi yoo xam ne dana am ñu mu ñoo xam ne dana danañ ko dañ ko war a jooxe muy ponk boo xam ne njaal bi njalbinu at mi mooy waxtu wañ ko war a jooxe ca ña nga xam ne ñoom la war loolu mooy aseka ñi nga xam ne dañuy yor ak jur mbaa ñuy yaxantu di jaay ak jënd baa ñu denc alal eh, ñooñu ñëpp bu at mi tero fukki weer ak ñaar ci at ci weer mu njëkk wi kon ci la seen asaka di war bu fekkee sart ya war a daje ci ci ñoom daje na ci ñoom moo tax waxtaan tey yi bala ñoo àgg ci tënk xutba ajjuma ji ci wolof eh, ñu njëkk a wax ci tomb bii di asaka nga xam ne farata di ponk ci ponk lislaam yi te waxtoom itam di njaal beenu muharram ci ñu baree bari eh, kon loolu ci lañu bëgg a tënk ay baat rek bala ñoo àgg ci tënk ci tënk xutba arab bi imam bii def ci wolof bi bi imam bi def ci arab dañ koy tënk ci wolof eh, asaka liñ ko waxee ponk la ci génne asaka ponk la ci ponki lislaam yi juróom alquran moo ko digle suñu borom mi ngi wax yonent bi saa ko xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salawaatika sakanun lahum wallahu alim digal na ko mu jël asaka ci alal yi ñi nga xam ñoo am alal ya asaka war te bu ko jëlee itam asaka ja neen dana leen laabal di leen sellal te itam bu ko jëlee na leen ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ponk lislaam ñu ngi ko tabax juróomi ponk mooy seede ne amul benn buur bu dul yàlla subha euh, yonent bi sallallahu yàlla moo ko yónni ak taxawal julli ak joxe asaka ak woor weeru ko aji màkka kon benn la ci ponk lislaam yi di farata ci bépp jullit boo xam ne am na alal ju asaka war joo xam sart ya war a tax asaka génn ci alal dajana ca kon képp di jullit koo xam ne am nga alal ju bokk ci alal yi ñu war a génne asaka te alal yi ñu war a génne asaka mooy lépp lu ñuy bay di ko dundee di ko denc lépp lu ñuy ñuy bay te di ko denc man koo dundee kon ci xeeti mbay yi ak xeeti meññat yi kon asaka war na ca uh, duguba nga ca ceeba nga ca mboq a nga ca ñebbe nga ca ak yeneen ak yeneen xeeti meññeet yi itam yi ciy dunde muy tàndarma ak raisin moom it ña nga ca képp koo xam yoon nga jur juri kërit ñi ko am muy xar ak nag ak bëy ak giléem yooyu itam ku ca am loo xam ne sart yi dajane ci asaka da cay war wurus ak xaalis moom it ku ca am loo xam ne sart da dañoo ci asaka da ko cay war li nga xam ne itam day taxaw taxaayu wurus xaalis mooy xeeti xeeti xaalis yi ñuy tëgg yi ñuy defar di ko wecc konte ci biir réew yi ni ki franc CFA ci senegal ak ñi ko bokkal ak lu mel ni euro ak lu mel ni dollar ak yeneen i xaalis yi am ci àdduna yëpp te ay réew di ko jëfandikoo ñu di ko xayma itam ci wurus loola it ku ca am loo xam ne méngu toll naa tolloo naag la war la asaka war ci ci wurus su boobaa asaka da koy war képp koo xam tamit yaa ngi jënd ak a jaay di jënd loo fa yéenee jaay kon la ngay jënd ak jaay it moom it ñu di ko xayma ci wurus ak xaalis moom it asaka da cay war war kon xeeti alal yi daal mooy alal yi nga xam ne asaka war na ci kon képp koo xam ne am na ci xeeti alal yi jenn alal yoo xam ne sart yee ca war a daje daje na ci su boobaa kon asaka da cee war mu mel ne asaka nag ñi nga xam ne ñoom ñoom seen waxtu teew nii nii mooy ñi nga xam ne ñoo yorug jur ak ñi yor wurus denc wurus mbaa xaalis wala xaalis yi wecc yi tolloog yu mel yooyu wala ñiy jaay ak a jënd kon ñiy bay rek ñoo ci génn ñiy bay rek ñoom la seen waxtu génn asaka jotagut bu fekkee ne seen amu ci ñoo xam ne toll nañ ci di ñoral kon ñooñu seen waxtu asaka kon war na alal yi nga xam ne ci lañuy génn asaka nag sart yi ca war a daje bu dee ci yi ma tudd nii nga xam ne ñoom la seen waxtu jot day ami sart sart mooy alal ji ngay génne asaka na doon yoo xam ne yaa ko moom yaa ko moom na nekk ci moomeelu ku ñu ràññee alal joo xam ne daane ci loxo yi ku ko moom ku xam ne kii moom lii moomeel goo xam ne yoon nangu na ko moomeel gu wér ci sariya tamit tam mën caa jëfandiku nag nga xam ne moom kenn gàllankooru ko mën na caa jëfandiku saa yu ko soobee kon moomeel googu bu wéree rek ci alal jooje benn la ci sart yi tax asaka war ca ñaar mooy asaka alal ji ñuy génne asaka day doon alal ju ñu ju yokku ju mën a yokku yoo xam ne mënees na caa yëngatu muy yokku kon alal ju dul yokku moom kon asaka waru ca te mooy alal yi nga xam ne dañ koy woomloo rek Euh, kër yi nit ñi dëkk ak woto yi ñuy war ak jumtukaay yi ñuy liggéey ak ya mel noona fas ya ñuy téye ak yu mel noona nga xam ne ay jumtukaay yu liggéey la nga xam ne nekkul lu ñuy jaay ak jënd nga xam ne kon du yokk alal ji dul yokku nga xam dañ koy woomloo rek loolu kon asaka waru ca ñetteelu sart bi mooy alal ja ñuy génne asaka na ca nisaab na mat ni nisaab mooy na toll ca na àgg ca tolluwaay ba nga xam ne bu ca tolloo ñu jàppee borom alal ja ku woomal loolu la ñuy tuddee nisaab na ca na mat nisaab bu ko defee nisaab ci wurus mooy ñaar fukki diinaar nisaab ci xaalis mooy ñaari téeméeri dërëm euh, ñaar téeméer bu ko defee nag ak lu tolloog lu tolloog yooyu ci xaymab xaalis bi ñuy jëfandikoo Euh, itam moom it ku ca am lu toll noonu ci xayma booba moom it asaka da ca yor ñaar téeméeri dinaar ñaar téeméeri diinaar yi wurus ci wurus yi nga xam ne mooy wu sell bi nga xam ne ci lañ mën a génne asaka nga xam ne wurus wu dara raxut la muy wurus wi ñuy natte fukk ak juróom-ñett bi ñuy wax wurus wi waaw fukk fukk ak juróom-ñett wurus woowu nga xam ne juróom ñetti fukki garaam ak juróom moo cay nisaab moom kon loolu buñ ko dee xayma ci xaalis bii ñu jëfandikoo ci Sénégal xaalis CFA ci jamono yi ma koy waxee nii nga xam ni ko tàmbalee ci bisub démb nisaab jooju ñaar fukki dinaar yooyu fi mu toll ci jamono ji may waxe mooy ñetti million ak ñaar fukki junni ak juróom benn ak ñetti téeméer ak fukki dërëm ñetti waaw loolu kon mooy nisaa bi euh, xaalis bi ñuy akbar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 محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول رسول محمد رسول charte bi ci charte yi tax asaka war ci alal mooy namat nisaab nisaab xaalis nag ci jamono ji xaalis bi ñuy wecc eh, jëfalantee muy franc fa bu ñu nattee nisaabam ci nisaab bi wurus bi ñuy tuddee fukk ak juróom-ñett mi ngi tolloog ñetti million ak fanweeri junnee juróom benn ak ñetti téeméer ak fukk ak fukki dërëm foofu la toll ñeenteelu charte bi mooy na mat at ki ki am alal ji asaka war a génn mooy joo xam ne nekk na ci loxo yi boroom ci moomeelam lu mat fukki weer ak ñaar at kon alal joo xam ne nekkul matagul at ci loxo yi boroom te du mbay mbay muñ bay mu ñor kon su boobaa asaka du ca waragun kon matuk at ci la ci misa ci saat yi la bokk ba ca topp it ki génne asaka bu mu am bor yu baree bari yoo xam ne su ko fayee lam dootul mat nisaab su fekkee am na bor yu mel noonu te amul yeneen alal ju asaka warul juñ ko war a juñ ko mën a faye kon ba tey euh, asaka du ko war asaka nag ci xeeti <coughs> alal yi ma wax muy wurus ak xaalis ak euh, lu ñu koy xaymaa ci xeeti alal euh, xaalis yi ñuy jëfandikoo ak ci xeeti lu ñuy jaay ak jënd mooy mooy ñeenteelu fukkeel mooy ñaar ak genn wàll ci téeméer bu ne ñaar ak genn wàll ci téeméer bu ne loolu lañ koy génne maanaam alal ji ngay génne asaka daal lu mu bari bari boo ko séddalee ñeent fukki cër benn cër ba la ñuy asaka moom mooy moo cay mooy la cay war euh, bu ko defee kon ñiñ koy jox yàlla dogal na am na kuréel gu sëriñ bi joxe ndigal ñu samp ko ñu koy tuddee kër asaka yi mu lëkkaloog Tuubaa ca kanam képp koo xam ne génne nga asaka jox leen ko ñoom danañ ko jox ñañ ko war a jox ku amit loo bëgg a xam lu gën a leer ci yii yëpp boo jokkoo ak ñoom dañ la ko mën a leeral euh, kon nag tënkub xutba yi nga xam ne moom imaam bi nar a def ci kanam tuuti ci arab ci xutba bu njëkk bi ginnaaw bu mu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla mi nga xam ne moo def moo wutale jamono yi am jamono yu mu def mu nekk jamono yu yu yu jamono yu ngëneel yoo xam ne da koo da koo teral wormaal ko ba ku ci jëf jëf ju baax mu ful ko lu baree bari ku ci jëf safaan it naka noona mu ne yàlla mi def loolu mi ngi koy sant bu baax a baax di julli Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, di xam leen weer wi ñu nekk mu weeru tamxarit di muharram weer wu màgg a màgg la fa sunu boroom bëgg nañ lool ku ko mën a woor ku ko woor boo ko mënee nga woor lu weer yépp ba mat boo ko mënul nga fexe ba woor ci lu baree bari sa kem kàttan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne afdalu siyaami baada ramadaana shahrullahi almuharram nee na weer wi gën ci weer wu ñuy woor ginnaaw weeru koor ginnaaw weeru ramadaan nee na mooy weeru yàlla wi ñu tuddee muharram nee na kon mu ngi soñ ñëpp képp ku ko mën a woor lépp baax na ku ko mënut loo ca mën ci woor nga def ko rawatina nag bis yi nga xam ci lañu toll mu ne dem nee weer itam euh, wu jara màggal la rawatina bis bi nga xam ne moo ci nekk muy bisu fukkeel bi di bis ni ki tey jii ñu koy wax Ashura nee na bis la boo xam ne ngëneelam eh, ak ku yiwam siiw na lool ñu njëkk ñaa ngi ñu mujj ñëpp dëppoo nañ ci nangu ne weeru bis bu màgg a màgg la bu mat a màggal la moo tax kon nee na war nañoo farlu bu baax ci di ci di ci di ci dimbale jërim yi di leen ci fàttaliku di leen ci yërëm di leen ci dimbale tey dimbale itam ñu ñàkk ñi ci luñ man ci xeeti koddaay ak xeeti ñam loolu la tënk ci xutba bu njëkk bi xutba ñaareel bi nag ginnaaw bi ci sant yàlla moom itam jiri sant bi sallallahu alayhi wa sallam ngi fàttaliwaat ngëneelu bis bii nga xam ne mooy bisu fukkeel bi ci tamxarit bis bu màgg a màgg la bu mat a màggal la boo xam ne e, bëgg nañ lool sopp nañ lool ku koy ku ko ku ko ku ko woor bis bi bis bi ko jiitu it muy bisub démb bi nee na bis la boo xam ne bu mata woor la ndax nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci atam ci tamxar gi mujj fekk ci ci jamono daa waxoon ne su ma fi yàlla bàyyee ba dewen danaa woor bisub juróom-ñeenteelu tamxarit yàlla dogalut mu fekkewaat ko boroom xam-xam yi nag ne wute ci am ñu ne kon bu ko fi déwén fekkoon daa nar a bàyyi fukkeel bi te woor juróom-ñeenteel bi ñi ne déedéet daa daa nar a da ko naroon a boole woor ko ñaar yëpp moo tax kon boroom xam ne daal sopp nañ ñëpp ñu bokk ñu bokk boole boole woor ñaar yëpp rek woor bisu juróom-ñeenteel bi ak bisu fukkeel bi ci ku ko ku ko man bisu fukkeel boobu kon nee na borom nga ne lu mag a mag la am lu mat a tax nañu mat ko lu jar màggal la bokk na ci liñ ci li ci am solo lool itam mooy di ci berndeel sa njaboot berndeel ci sa njaboot ci xeeti xéewal ndax nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na man aw saa mm, ala iyaalihi eh, yow yowma ashura aw saa allahu alayhi eh, tuula sanatihi képp koo xam ne berndeel nga sa njaboot ci bisu tamxarit yàlla dana la yaatalal ci nga defal ko sa sa njaboot ak sa ñoñ suñu borom dana la dana yokk sa wërsëg diirub at mi kon soññee na bu baax daal ci ñu fonk bis bii euh, te màggal ko ci xeeti jaamu yàlla xam ngeen ne am na fukki yëf ak ñaar yuñ ci digle muy woor bis bi mooy li ci ëpp solo euh, ak julli ci julli naafi la ñeenti rakka euh, moom tam ak ñaan ya cay topp ak jokk ci bokk ak saraxe ci ak sangu ci càngaay lu mel ni loolu farata te yéene ci luñ sopp rek ak tusngalu ak lewi say we ak berndeel sa njaboot ak jàng saaru lexlaas euh, junni yoon ak raay boppu jirim fukki yëf ak ñaar la yoo xam ne euh, sopp nañ borom sopp nañ ko ko ci def kon soññe na bu baax ci ñu fonk bis bi ak màggal ko kon daa mel ni lii mooy euh, li ñu bëggoon a ci waxtaan wi di ñaan sunu borom nangul nu suñu jëf yu baax yëpp te jéggal nu suñu rëcc rëcc te saxal nu ci ak jub te may na mu rafet te yàggal kilifa ci suñu kanam te wéral ko te kàttanal ko nu ànd ak moom na mu gën a rafete wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. anna muhammadan rasulullah 我到你回家去。 alhamdulillahi alladi ixtaara lana shuhuuran wa ayyaaman laa yuxshaa wa laa yu'addu fadluhaa nashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu sacaadatan laa yadii'u ajruhaa wa nashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu samsul mawjuudaati wa badruhaa sallallahu alayhi wa alaa aalihi wa saxbihi salaatan tatawaalaa wa tadum falaa yublaqu kunuuhaa أما بعد فيا أيها الناس اغتنموا أوقاتا يقصروا عن سعة فضائلها الجو والفضاء ولا تعرضوا عنها فالمحروم من كان عنها مرضا فإن سعركم هذا له فضل عظيم عند الله وشان وأفضل الشهور كلها لصوم بعد رمضان قال عليه الصلاة والسلام أخذ للصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فلهذا الشهر مزية ليس لغيرها من الشهور ولا سيما يوم عاشوراء العظيم المشهور فإنه مشعون بالخيرات والفضائل مشعور عند الأواخر والأوائل فهو حقيق بأن يعظم ويسام ويحسن فيه إلى المساكين والأيتام ويتصدق فيه بما تيسر من لباس وطعام الحمد لله الذي أنعم علينا بإحسانه وحبانا بمزيد فضله وامتنانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد فيا عباد الله تذكروا بآيات الله واتعظوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وعلى سنته حافظوا قال تعالى laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana wa kaana sallallahu alayhi wa sallam yataxarra siyaama yowmin faddalahu allahu ala gayri wa an ibni abbasin radiallahu anhuma annahu sallallahu alayhi wa sallam qaal la in baqiitu ila qaabilin la asuumanna taasia fa qiila innahu sallallahu alayhi wa sallam kaana araadu an yanqula sawma ila taasi وقيل أراد أن يصوم العاشر والتاسع ولهذا استحب علماء هنا أن يصام يومان معا وقال أيضا من أوصى على عياله وأهله يوم عاشوراء أوصى الله عليه جميع سنته وقال أبو بكر بن العربي رضي الله عنه أما النفقة يوم عاشوراء وتوسعة فيه فمخلوفة باتفاق نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين فبحديث النبي الصالح الأمين يغفر الله لنا ولكم وللسائر المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على السراج أي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر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 wal aaxiratu xayrun wa abqaa inna haadaa fi suxafi l-uulaa suxafi Ibraahiima wa Muusaa Allaahu akbar Allaahu akbar sami'a Allaahu liman hamidah rabbanaa lakal hamd Allaahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين لا تلك حديث الخاشع وجوه يومئذ قاسعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من آن عميم ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمع يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسيها راضية fi jannatin aaliyatin raasun fa baaqiya fi aynin jaariya fiha sururun marfuatun wa akwaabun mawduatun wa namaariqu maffuufatun wa zaraabiyu mabsuutatun afalaa yanzuruuna ila libli kayfa xuliqat wa ila samaai kayfa rufiat fa zakkir in nafaat إلى السماء كيف إلى السماء كيف نفعت إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إلينا إيابهم ثم علينا حسابهم allahu akbar allahu akbar sami allahu liman hamid rabbana lakal hamd allahu akbar allah asalaamaaleykum